ñi ñi nga xam ne moo suñu dem États-Unis bëri na te ñoo ma gën a tekki ci réew mi. ñu ngi toog ci réew mi histoire laa ngi toog ci réew mi tekki. dëgg dëgg la. est-ce que du yow. Mhm. mirage bi jeunes yi am tey ba mu jaral leen ñu jël gaal affronter les vagues. Mhm. affronter la forêt. Mhm. du du du du du du Nicaragua. est que du mirage boobu tamit moo la animé. lan mooy mirage pour pour mirage de l'Occident du. mirage xam la. la la. espoir parce que ñaata Sénégalais ñoo dund fii ñoo xam ne ñu ngi fi tekki te gën ñu sax tekki loolu d'accord naa si mais man dama gis aussi Sénégalais am dañu dund fii jàng fi ñu war a jàngee am diplôme yi ñu war a am sonn ni ñu war a sonnee li ñu leen fay weer matul sax jënd cin ci kër gi par jour ñu nekk ci coono yu métti nekk ci difficulté yu métti ma gis sama papa muy jàngalekat servir réewam. dem na ba retraité ba génn àdduna mosu sax daawal oto man Amérique 18 ans sama doom 17 ans lay jëndal boppam oto qualité de vie ñu suñu parents yi amuñu ko ma gis suñu maam yi di bay ci àll bi bu weer dee 3 mois bu jeexee ma sœur baykat lambda ci Sénégal nga nekk ci ruuj ak tool lu méttee tàngaayu Saalum beeg bu Touba beeg bu et nga bay ba pare ba bojj ba jaay dundal ñu nekk Dakar yéen bu ngeen mën a toog fii di dund di nekk seen télé di waxtaan ñun baykat yi ñoo tax parce que ñooy dugg si naaj di leen bay di leen ko yónnee fii baykat Sénégal bi dafa nekk ci au dessus ba nekk gën a suufu pauvreté lu mat cent soixante di mille francs da ko am bu jaayee ba fay lépp lu muy fay ma gis baykat boobu amul espoir ma gis policier bi nekk ci mbedd bi di sonn si naaj bi fii ci biir réew mi salaire am du mat trois cent mille wala quatre cent mille francs à côté ma gis politicien boo xam ne tàcc la doon def tàcc ñu fat xale tam ñu def ko DG mu am dix millions wala cinq millions comme DG di fay dootul jënd essence xamul luy essence dootul jënd oto dootul jënd et cetera mooy faj gécce mooy jox faj gàcce yi mooy jox ngénte yi ma xam ne su ma toogee su ma réew man personnellement ci loolu laay mujj te su ma yaay man dañ ma yónni woon yàkkamti ma ma reebe ci dëkk boo xam ne j'avais pas tort ma wàcc ci dëkk boobu commencé si nettoyer table ba bokk ci ñuy jiite ci réew mi ci jeunesse bi Amérique laaj ma kan mooy seen yaay kuy sa bàyyi ku la yónni ban kilifa nga bokkal dañ ma laaj lan nga mën what can you do ñu soutenir ma ci li ma mën ma wane ko nag réew ma dama fa liggéey ba pare wër àdduna bi réew bu ma tukki ci kaw àdduna indi naa fa njëriñ pour seen i doom man dama formé ay jeunes yoo xam ne dëkk boobu ñan ñoo ko tabax tolloon ñoom tolloon nañu ñun fi ñu toll du américain yi kese waaw ah. man xam naa xam naa ñu ko tabax dëkk boobu ngëm-ngëm moo ko tabax waaw moo tax ma ñibbisi engagement moo ko tabax. moo tax ma engagé ah man xam naa loolu. espoir moo ko tabax espoir boobu nag moo tax ma ñëwaat di ko defar sama sama programme bi xam nga lu ma ko tëgg lu tax ma dugg ci politique pour amener l' espoir dans mon pays. Ah, ils ont connu pour la pauvreté ils ont connu la maladie. ils ont ouais, connu mais... la guerre. waaw ouais, d' accord je suis d' accord. loolu yëpp. ah bravo. ñun suñu peuple. Mhm. tamit. du surmonter jafe-jafe yii mu am. voilà ba dans ba dans vingt ans peut-être. Uh-huh. sénégalais bu nekk ci Sénégal. Mhm. am mbégte toog ci réew exactement li wax nag loolu moom moo tax man su ma ñibbisi dañ ne jom mooy tukki waaye fële mooy ñibbisi may mun a li nga wax noonu man moo tekki sama ñibbisi li sénégalais yi jeunesse sénégalais bi yëpp daw uti bu ñu ko amoon seen réew duñ génn man su ma amoon li ma uti woon États-Unis du ma fi toog. man ñoom leer na ma sénégalais yi nekk bitim réew yëpp yow xam nga ko sénégalais yi chaque jour eh, diaspora bi ñu ngi fi dugal chaque année mille six cent et milliards li ñuy dugal ci xaalis fii moo ëpp aide au développement public. cette année ils ont injecté mille cent. milliards la ñuy dugal moo ëpp l'aide au développement public. kooku fàttewul réewam kooku dafa dem pour faji te bu toon bu du toon ñoom rek dëkk bi ñaaw.